wala bu daal yëpp nañ ko toxam comme ku yore contact xam naa ci dara daal mais yàlla baax na alors troisième euh, troisième mandat bi ñu doon waxal président Macky saa c'est-à-dire foofu aussi euh, li ndaw rek nañ si wax parce que je crois que euh, erreur bi mooy bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a kii bañ bañ a def attention ci li nga xamante ne mooy yenn mbir yi gis nga man je crois que le président Macky Sall mooy koo xamante ni du wax lu muy def du def lu muy wax du wax lu muy def nag ça ne veut pas dire que wala du def lu muy wax ça ne veut pas ay manque de respect la non non non maanaam li muy annoncé ak li muy def ñaari mbir la ci wàllum politique lu leer la par exemple moom bii def dara dafay dafay dafay dafay dafay taal ay contre-feu yu bëri. boo leen di seetlu depuis depuis depuis mu war a annoncé li nga xamante ni moom mooy euh, son choix euh, dina bokk wala du ma bokk mi ngi revenir ci ay état de droit mi ngi revenir ci ay stabilité mi ngi revenir ci ay institution dañ leen war a préserver ak yooyu depuis le départ mi ngi koy wax te ba mu koy wax commentaire yii ma ciy dégg la ci bëggoon a dégg mooy que ñu ni président bi de boo moytuwul dina jéem a demander deux ans sous prétexte dafa am benn instabilité commentaire yooyu noonu moo taxoon miy wax di utiliser ces mots ak termes yooyu boo xoolee wax na ko ci discours am bi ba muy naan dafay renoncer renoncer sax je sais pas parce que est-ce que mën nañ ko tuddee renoncement vu que musul annoncé que ni dafay nekk candidat mais il a entretenu quand même le moom c'est clair en tout cas ba muy wax choix moom le président de la République dugal na ci ay ay ay ay phrase yoo xamante ni moo ko bindal boppam wala moom moo ko bindulu mu taxaw wax ko phrase yooyu ba tey mu ngi wéy di ko répété pour ñu am si yenn jàngat yi di naan wéy le président de la république dafay dafay dafay kii dafay yolomal ba affaire yolom bu ñu ne Sonko mu wëlbatikuwaat ni dafay doon candidat non loolu loolu c'est c'est en fait loolu c'est impossible en tout cas pour man mënuma xalaat ni loolu possible la est impossible c' est parce que tout simplement bu nekkee ay ay hypothèse la bu nekkee dañu ni dañuy jël hypothèse bu gën a pessimiste mooy que Ousmane Sonko condamné nañ ko tëj nañ ko ci kaso bi mu am ay euh, lu mu tudd nit ñi di manifester manifestation yi du jeex moom président Macky Sall ni instabilité am na. hypothèse la waxuñu loolu am waxuñu aussi loolu lay def moom président Macky Sall ñu ni euh, instabilité am na ok léegi moom dafay ñëw pour sàmm suñu institution yi comme ni mu ko doon waxee comme instabilité institutionnelle am na il faut moom mu ñëw taxaw dawal deux ans mais yow di fekk situation de crise crise boo xamante ni entre guillemets hypothèse la toujours entre guillemets yow yaay le responsable léegi yow le responsable de cette crise pour nga indi sortie de crise nga ni damay présenté wu candidat ci élection de veka wala damay proroger sama mandat xanaa loolu mooy fekk crise nga jël ko nga nga euh, fekk fekk euh, lu mu tudd euh, essence fekk lii tàq nga sotti si essence wala nga sotti si gasoil loolu en fait c'est invraisemblable mais le président Macky boo leen ko xamul ba tey ñun ñëpp ñoo ko war a jàngal parce que président de la République bi teg ay acte yoon la quand ñu jàng ko Macky Sall ba muy nekk président ba tey bii jël décision yoo xamante ni décision yu majeure la du wane benn mbir boo xamante ni day wane que ni kii décision fii la jom wax nañ ko ba muy def le référendum kenn xalaatu ko woon kenn xalaatu woon référendum dafa ñëw toog jàkkaarloo sénégalais ni consulté naa conseil constitutionnel avis conseil constitutionnel nee nañu du ma mën a wàññi sama mandat damay def référendum pour yokk 16 point xaw ma damay modifier 16 points ci ci constitution Sénégal bett ñëpp ñu doxalaat mu ñëw ba muy changer euh, gouvernement Sénégal di génn euh, le premier ministre dafa dem élection campagne ànd ak premier ministre campagne wër Sénégal def def def def def sénégalais yi fal ko li mu njëkk posé comme acte mooy supprimer. poste premier ministre ba mu koy indi aussi tàgguwul kenn yëgalu ko kenn te pourtant mu ngi doon am yeneen annonce donc président à chaque fois bi def yenn annonce yi am na leneen loo xamante ni mi ne ci xelam te yenn commentaires yi ñuy yi ñuy amal parce que dañu am esprit bu critique et c'est très normal commentaires yooyu lay xaar parce que en réalité man li ma gëm mooy que dinañ def le tout pour décourager askan bi dañ def le tout pour que askan bi bañ a teel a dem ci li nga xamante ne mooy li koy xaar en 2024 mooy un choix boo xamante ni choix bu judicieux lay doon léegi nag lan nañu nar a def mooy entretenir ay débats yu inutile ay way président dina ñëw ak du ñëw ay way watara fii ay syndrome fii ay kenn xamul ba ñun xëy suba ñu ni ñu 2024 jot na Macky Sall nekkul candidat ñu ni waa yow ñun de jotuñu woon réfléchir si kan nañuy voter ñun de wa jot ñu woon réfléchir ci euh, programme yi ban mooy programme bu gën a baax ñu ñun ok nañuy ñëw rek jël kenn loolu moom moo ñu indi souvent ñuy jum ci suñuy tànneef parce que du ñu jël temps de réflexion bi wax pour jàngat saytu xool candidat yi ban candidat moo ci offrir programme boo xamante ne mooy programme bu meilleur mais aussi profilu candidat bi parce que nga am programme bu baax loolu c'est une chose mais yow mi nga xamante ni yaa am programme bi nga mën ko doxal aussi beneen biir la parce que mën nga am ay idées yu baax mais dans la concrétisation mun nga am ay jafe-jafe pour concrétiser ko pour réaliser ko donc nit ki na am xam-xam ak xarañte bu muy bindee programme mais ne aussi na am xam-xam ak xarañte boo xamante ni programme moom boobu mu bind da koy exécuter da koy réaliser te ñun ñoo war a xool. kan moo la war a présenter ce profil en 2024 donc je crois que vraiment war nañu mën a éviter yeneen débat yi nga xamante ni amul benn benn benn benn sens lu dul peut-être tester suñu suñu suñu suñu esprit suñu esprit critique tester suñu suñu euh, peut-être profonde yi ñu euh, réflexion yi ñu mën a am ak nu ñu mënee def ay remise en question loolu ñëpp nangu nañ ko sénégalais macha allah am nañu xel mën nañu euh, am nañu esprit bu critique mën nañu mën nañu douter de tout et rien loolu nangu nañ ko mais jamono jii quand je crois que wax nañu mën a gën a accentuer wu ci lan moo ñuy xaar en 2024 li ñuy xaar en 2024 mooy ay élections yoo xamante ni dañ ko war dañ si war a dem tànn président de la république am na ku ko wax bi passe moo juumul ci penco bi élection yi ñu doon def yëpp dañ doon folli mais vingt 2024 dañu am responsabilité bu bees moo dañu war a tànn tànn boobu nag dafa wax a doon tànneef bi gën te kenn warul toog en mille 2025 wala 2026 wala 2029 dinaan dañoo juumoon ndax tànneef boobu dafa war a doon tànneef bu réfléchi ñu xool bañ si teg ay mbir de kii ñoo bokk dëkk kii ñoo bokk village kii ñoo bokk tarixa kii ñoo bokk ethnie ñu teg lépp li nga xamante ne subjectivité la de côté na bokk way jur mais boo jàppee que ni kii munul jëlal nga teg fële mais boo jàppee ni kii moo gën ci askan bi na doon jullit nga doon chrétien na doon lu mu mënti doon loolu teg ko fële de côté xoolal ni kii da nga ko nar a dénk sa réew te présenté na li nga xamante ni mooy ay garantie yu wër mooy am na ay valeur mooy am na aussi xarañte boo xamante ni non seulement am na programme mais programme mën na ko exécuter di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ñu dem euh, ci keppaar gi parce que 16 heures jot na euh, ñu dem waxtaan ak euh, sénégalais yi rek ak yenn sujets yi lundi incha allah ñu ñëwaat fii amalaat beneen beneen beneen live di leen jaajëfal I'm out. seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda